Assalamualaikum mbokki jullit mbokki talibé ci kàddu gi Cheikh Abdou nugum nugum le moi 100% bawol bawol 1000% Sa may sakku nak yow mi nga xam jot nga déglu sama kàddu nuyu yi nga déglu vidéo bi ba jeex ndax limay wax man naa am daan naa wax lolu amal njariñ waye musuma wax man luma ma amalee njariñ nii dafa am tuuma jo xam dafa juk dal ci sunu kaw ñen ci ñi ñi woy artiste Touba yi wala bok tiktokeur geri Touba yi yalla dogal bo tuddi tiktokeur yi Touba yi dag ma ci bolé bo tuddi artiste Touba yi dag ma ci bolé na amna plateforme yi comme ñep amna ay followers yo xam ñu may top comme ñep am ko ñuy wax jëwriñ bi ñu wax euh, Antoine Diome defe naa mooy ministre de mooy photo boobu ngeen gis ci suuf vidéo bi yàlla dogal mu am ay nit yoo xam ni dañuy wax ne dafa dugal xaalis Touba jox ko yenn ci influenceurs yi pour ñu koy tagg ak di ko gërëm ak di wax yu baax yu muy def comme que dañ la koo jox tëgg tëgg Touba yi wala artiste Touba yi taman ma bokk seen biir bu ma génnul leeral ñu bari mën nañoo jàpp ne damaa jot ci li muy joxe jot naa ci. ndax wax pare nañ pour jox ma woo nañ ma ni ma 300000 a ngi nii yoo xam ni waxal nangam ci Antoine wax nangam ak nangam ak nangam wax li ñu def ci réew mi ak yéen a am ci réew mi ma jëlaat 300000 yi delloo ko ndax sama dignité ak bi ma koy lekk samay dëkkandoo ñi ngi am problème ndox te mënuñoo sangu mënuñoo naan te Touba ku ne xam na ni am na ci quartier yu bari yoo xamante si ni bañ gëj amul ndox kenn xamul kañ la ñu ngi koy jooytoo fu ne suñuy waajur di rooti suñuy jabar yi mag di rooti ñun ci suñu bopp ñuy bu fekke man sama kër a ngi xel te kër gi ma dana xelu day melni man ma manqué ndox ndax ñun ñëpp ño bokk dëkk bi kon euh, Antoine ma ngi lay ñaan 300000 yi nga yëkëti di jox yeen influenceur yi wala xaaliss ak nu mëna toll don de 50000 50000 la nga yëkëti ko dimbalé ko ñi nga xamni soxla nañu ndox nga xamni ñaan bokay am ñaanu mbolo lay doon ndax bu ma la gërëmee te ñëpp gërëmuñ la wala ñu bari gërëmuñ la ngërëm li ak neen lay doon bu fekkente nak ñëpp la ñaanal wala lu ñëpp soxla nga def ko mooy gën kon nag yéen ñi nga xam ne samay moro moromu artiste ngeen wala samay moromu tiktokeur maa ngi leen sàkku ci yéen ñi nga xam ni am ngeen tuuti conscience ngeen xalaat ni rek lu ngeen mën a mel public bi ñoo leen ko def doomu adama yi ñoo leen di siifur ñoo leen may doole kon bu leen jaay seen ngor ngir xaalis tey nag juróom benn fukki junni tey bu mu tax nga yàq sa 1 million yi suba nit da gore wét gore wétru gore man nag jiin ak kañ laa def ndax moom dongu laa gëm moom dongu laay topp naam nag ku ma ndox bis bu ko defé rek dina dir ci wat sant ko te duma ci xaar kenn waye moment bi nga xam yëkëti na 300000 mille di ko jox wala bok nitam ko xam ndawam la wona ma ni ma 300000 yaangi ni so defé soo vidéo bala nga tëdd ci bilal ma jox lako xam ngeen ne soxla nako mirito wonako yittu wonako ndax ñi ngi waaj ay événement ab mourid la ma ngi waaj magal kon kuma jox 300000 warna war naa ko mën a jël mais nak a une condition ak i condition duma tag kenn ci lu lu defut wala may waxal nit lo xam du jikko wala may wax ci nit lo xam du deug lolu sama dignité moo ko gënal bis bu defaree forage nak touba gep amum ndox ma gis ni ñi ma daan kaasal kat ndox mi ñëw rek dina del ci sant ko kon ma ngi jiglu ci kàddu lu ci ci sama matadi la lu ci bax rek matadi su matuk sun borom la jërë ngeen jëf assalamu alaykum bi ñu leen nuyo ziyaar leen rafelu sen andak ablay nar les le mbokk yi diirub ay bés ngi ay nit di ma woo naan ma ablay nar dañoo deg ni Antoine Félix jonn mi ngi yëkkati ab xaalis di jox tiktoker yi nga xamni ño nek ci dekk bu sel bi tuba ngir ñu def ci mom video manam di jënd booba nag mënuma ci woon a addu ndax aw ci woon dëgg-dëgg lu ma leer waaye fi mu ne nag mën naa ci wax ndax am naa ci lu ma leer ndax man mii di Ablaye Naar woo nañ ma ba yëkkati trois cent mille teg ko ci sama loxo ngir ma def ci Antoine vidéo waaye nag dama ko delloowaat li tax ma delloo ko moo di Antoine xanaa yëgoon ni jamono ji lu ëpp fukki quartier ak juróom ci dëkk bu sell bi di Touba ñi ngi am jafe-jafe ndox te moo ne li ci ëpp moo di pompe rek lay doon te pomp yi lu mu seer seer un million deux millions trois cent mille yi nga yëkkati di ko jox tiktokeur yi ngir ñu def ci yow vidéo lan la lay jariñ lan moo tax mënoo jënd ay pompe dimbali askanu Touba Antoine xanaa xamoo ni ab Ablaye na def ci vidéo nga jox ko cent 300000 jëriñul dara te moo ne day su ma ko defee ba noppi damaa war a desaat ak askan wi kon nag xalaatuma mukk sa xaalis boobu tax ma ko jëndeek askan wi nga xam ne ñoo tax ba nga soxla ma tey yéen ñi nga xam ne ay tutukër ngeen nekk ci dëkk bu sell bi tubaa ngir yàlla am leen ngor kep ko xamni ni la jox la 300000 ba 500000 ne ko lim lay defal nako defal askan wi ci jafé jafé ndox mi Touba ñi ngi ci am mu metti Antoine 300000 ak 200000 yeeg yi ngay jox askan wi soko dajalé dajalee ñaari nit ba ñet nit yi ngay jox jënd ci pamp dimbali askan wu lëm moo gën ngay woti tukkar yi len jox ay xaaliss ngir yalla am len jom te am gor nek ay gor bu len dara ak askan wi nga xamni ño tax ñu soxlan tay xaaliss day jeex de suba nak ngeen wara sa tamit bàyyi leen ci xel jërëjëf. wax dëgg yàlla man man Moussa xaw ma ko rusul mais man damaa rus xawma ma ko amul gàcce mais man damaa am gàcce ndaxte dama xamul ministre un ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur buy wàccee boppam bay egg ci di dem ci ay tiktokeur di leen fay ay trois cent mille pour ñuy tudd turam <laughs> non damaa xaw ma damaa war a ree xaw ma damaa war a minister ministre ministre de l'intérieur yow bo nga wacce sa bopp bay dem ci ay tiktoker di len fay ay 300000 pour ñuy wax sa tuddu sa tur yow di wax ci yow lu baax mais gars est-ce que ngi imaginer ki ni lim wax eh, ki ablay nar la ñun ñepp xam nañ ko nar Naar xamé wu ko ci ay tiaxam ablay nar bañ na ko ba wa waa ki Touba ci kanam mom la andal ci liggéey yu bare bare bare kon koku yaakar na ne du jël ay responsabilité di wax lu mel nii te li wax amul. Ablaye nar yabul ministre de l'intérieur ba taxaw di ko waxal wax ju toll ni Ablaye nar yabul sénégalais yi ba taxaw di wax limi wax ni té limi wax amul kon ñun ñëpp xam lañ né limi wax dëgg la parce que li motax ma gis fan yi leux leux ma ngi gis muy photo photo ak mom ak di def ci mom ay vidéo nan bye bye. bye bye xawma num nu koy sax mom bato parce que mom day dof dof lo di di jaar ci xélu gaay ah kon li motax ñu nan bye Antoine bye Antoine kon ndekati ay trois cent mille la yëkkati di ko jox booy booy Touba yi tiktokeur yi nekk Touba pour ñu leen di tudd yéen yeneen xool rek yéen yeneen xool ba xam trois cent mille jënd na seen ngor wala trois cent mille jënd na seen dignité non man damay man man affaire bi ay retaan la mu def quoi en tant que ministre de l' intérieur ah, ministre de l' intérieur nga taxaw di jël di dem si ay tiktokeur tiktokeur di leen fay ay trois cent mille pour ñuy wax ci yow lan lan la ñuy wax ci yow. xam ngeen kii lii day wane ne liggéeyalul mag Sall boppam lay liggéeyal parce que liggéeyal boppam moo waral muy dem di fay ay tiktokeur pour ñu koy tudd moom fayu leen pour ñuy tudd mag Sall de fayu leen pour ñuy tudd ay réalisation yi nga xam ne moom la Macky Sall di def fayu leen ñuy tudd sax troisième mandat bi ñuy xel ñaaree te nee nañ dinañ ci wax fi après tabaski ñu ngi leen di xar fayu leen pour wax tudd Macky Sall de fayu leen pour ñuy wax ci mag Sall lu baax mais daf leen di fay pour ñuy wax ci moom kon yow Macky Sall sax boo amay xel dafa war a xam ne gëmoo ko yow sa bopp nga gëm Macky Sall bu amé xel dafa war a liggéey loko mais ci sa bop nga nek yow parce que yaa ngi fay ay xalé pour ñuy wax ci yow abla Nar ñemul taxaw di wax lool té lu mu wax amul Antoine mi nga xamné ni ku ku sekkat sekkat bu ko neexul sax mu dem jëlé la xamné abla Nar du jël ay risque taxaw di wax li wax ni té li wax amul li wax ni lu dëggu la lu wër la mais man lima ci nakari moy en tant que ministre de l'intérieur bu doon ben politicien bu nek ci biir parti Benno bokku bakar sax comme si ñooñu nga xam ne mooy loolu jox ñu leen benn poste ci réew mi ñooñ sax bu ñu demee di def loolu nga naan dañoo bëgg promotion ak dañoo bëgg ñu xam leen dañoo bëgg si wala et cetera mais ministre de l' intérieur intérieur yow réew mi yëpp yow yow seen kaaraange si yow lañ ko lañ ko teg quoi donte ne matewoo ko sax parce que yow li neex li la neex ci nga nekk di def ndax chaque jour nga gis fi loo war a lijjanti nga taxaw di seetaan mais nga taxaw di jël ay trois cent mille di ko jox ay xale Hmm. non c'est moo tax li la Ablaye Naar wax dégg nga ko fi mu toll nii Touba dafa bari ay ay ay dëkk ay dëkk dëkkaan yu nekk ci biir dëkk bi yoo xam ne amuñu ndox dégg ngeen bërki démb rek benn jëriñ bu ko doon wax ay dëkk dëkkaan yu nekk ci biir Touba yu bari yoo xam ne amuñu ndox te dañuy am forage ci biir dëkk bi ba pare dañu am ndox yow jëloo sa trois cent mille trois cent mille yooyu bu fekkee yow nee doomu tuubaa nga da nga bëgg liggéey pour Touba da nga bëgg liggéey pour Sénégal mais demal nga jàppale askanu askanu Touba bi nga xam ne dafa dañu manqué ndox nga defar leen ay forage xam nga fi nga xam ne fa la ndox ma tagee nga dem lijjanti loolu sa trois cent trois cent millions boo ko dajalee leer na ma ne ay million la yow jëloo ko nga tas ko def ko ci forage yooyu ndox mën a ñëw nga jël ko di ko jox ay tiktokeur xaw ma ñan ñoo encaissé nag booy Touba xam naa si ñu bari te ñu bari yor naa seen numéro yor nañ sama numéro xamante nañ ñun ñëpp xamante nañ nag ku ma si gis nga ne da ngay tagg eh, Antoine si Diome dinaa taf fii sa ba ñu ma si ba sama diggante ak yow yàqu ñun ñëpp xamante nañ bu baax ah yor ngeen sama numéro xam ngeen ma xam naa leen yàgg nañoo demlante ak di dikkalante yàgg nañoo siq ay teraanga man ak yéen yéen kër yi nekk Touba ñu si baree baree baree bari xamante nañ bu baax kon nag li may wax nii avertissement la képp ku ci dof dof lu ñu jox la ay trois cent mille nga génn fii di ñu fontoo naan ay Antoine Diome lii Antoine diom bo len demee ba def di bay tap photo wax len ko deug Antoine diom bo len di tap photo ngeen wax ko deug mu baye sénégalais yi mi note mu baye président Ousmane Sonko mi mi barricade parce que mom lolu ci ndigalam la wax len ko mu baye fonto gi mi fonto sénégalais yi mom mo gën ngeen nan da ngeen koy taf di wax ci mom ki que takka ce soit comme bu dee ma bugguma reetaan sax buguma reetaan quoi mais en tout cas dama len di tel avertir parce que Antoine diom warul jënd seen ngor ci trois cent mille bu fekkee dafa yor ay trois cent mille am na xool fi mu gën a jaadoo mu def ko fa am na feneen fu mu xajoon parce que waa waa Touba dañu soxla ndox instant bi fan yi yëpp yéen a ngi dégg ñu ngi jàmbat ndox ndox ndox ndox ndox fii ci Dakar rek dafa am ay régions yoo xam amul ndox kon yéen waroo leen jël ay cent mais mais ngeen yéen lu leen waxal yéen yéen ko def quoi léegi da ngeen am ay nervi di leen fay pour ñu wàcc si tali bi di xeex ak nit ñi ngeen amaat ay nervi yoo xam ne ñoom ñooy dem si plateau yi di sosal nit ñi ngeen am ay nervi yoo xam ne nag ñoo leen di nekkal ci internet bi di leen waxal li ngeen bëgg léegi nag ay nervi tiktokeur ngeen bëgg yéen ñu nekk Touba ku ci jël trois cent mille yi di waxal Antoine jom li mu bëgg nga wax jàppal ne ci nervi tiktokeur yi nga bokk boo dee youtubeur nervi youtubeur nga ak loo mënti doon nga nangu ñu lay ger ci ay trois cent mille pour ngay wax li nga xam ne eggul sa xol nervi nga loolu te man nervi du ma siq ak moom jàmm ku ma ci yor sa numéro ngay nervi nervi tiktok lu dinaa ma sa numéro dinaa la weeje dinaa teg sa photo fii bañu ma si dara bay boo nga porté ma plainte mais ku ci ku ma ci gis ngay nervi nervi lu parce que Antoine Diop ay nervi la leen bëgg def fii kuñ fiy jox xaalis pour ngay wax nervi nga foofu la affaire yi toll nan leeran ah? bu fekke moom yor na ay trois cent mille yu muy joxe donte na du xaalisam parce que bu doon lu mu liggéey mu ñàkk ko lekk ko doom duko yeket diko pasar pasar pasare mais comme alalu rew mi leen di jox na ngeen set sen diggante ak yàlla ci lim leen di waja a defloo bu baax ñu ngi leen di xaar nak gis nañ lekh lekh moom fan yeb mu ngi naan bay Antoine bay Antoine gis nañ photo bu mu ande moom ak yoy yeb mais man sax mom ay affaire am guma ci sori quoi parce que nawlo wu mako mais daf ci am ño xamni samay nit lañ xamna leen xam ma dañuy demlante di bu guma sa dara yàq sama diggante ak yeen te bis bo leen nango nek ay nervi tiktok moy man ak yeen c'est fini loolu na leer ah. asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziyaar leen rafetlu seen ànd ak Ablaye Naar le seen animateur mbokk yi di ayu bés a ngi nii ay nit di ma woo naan ma Ablaye Naar dañoo dégg ni Antoine Félix jonn mi ngi yëkkati ab xaalis di ko jox tiktokeur yi nga xam ni ñoo nekk ci dëkk bu sell bi Touba ngir ñu def ci moom vidéo maanaam ji leen jënd boobu nag mënuma ci woon addu ndax aw ci woon dëgg-dëgg lu ma leer waaye fi mu ne nag. mën naa cee wax ndax am naa ci lu ma leer ndax man mii di Ablaye Naar woo nañ ma ba yëkkati trois cent mille teg ko ci sama loxo ngir ma def ci Antoine vidéo waaye nag dama ko delloowaat li tax ma delloo ko moo di Antoine xanaa yëgoon ni jamono ji lu ëpp fukki ci ak juróom ci dëkk bu sell bi di Touba ñi ngi am jafe-jafe ndox te moo ne li ci ëpp moo di pompe rek lay doon te pomp yi lu mu seer seer un million deux millions trois cent mille yi nga yëkkati di ko jox tiktokeur yi ngir ñu def ci yow vidéo lan la lay jariñ lan moo tax mënoo jënd ay pompe dimbali askanu Touba Antoine xanaa xamoo ni ab Ablaye na def ci vidéo nga jox ko 300000 jëriñul dara te moo ne day su ma ko defee ba noppi damaa war a desaat ak askan wi kon nag xalaatuma mukk sa xaalis boobu tax ma ko jëndeek askan wi nga xam ne ñoo tax ba nga soxla ma tey yéen ñi nga xam ne ay tutukër ngeen nekk ci dëkk bu sell bi tubaa ngir yàlla am leen ngor kep ko xamni ni nañ la jox la 300000 ba 500000 ne ko lim lay defal nako defal askan wi ci jafé jafé ndox mi Touba ñi ngi ci am mu metti Antoine 300000 ak 200000 yi nga jox askan wi soko dajalé dajalee ñaari nit ba ñet nit yi ngay jox jënd ci pompe dimbali askan wu lëm moo gën ngay woti tukkar yi len jox ay xaaliss ngir yalla am len jom te am gor nek ay gor bu len jëndee dara ak askan wi nga xamni ño tax ñu soxlan tay xaaliss day jeex de suba nak ngeen wara sa tamit bàyyi leen ci xel jërëjëf